photo madame deuxième photo madame dama bëgg ànd ak yéen. ànd ak ñun kii ah da koy may mettre bis lay xotti. nañ ko yóbbaale nag xam nga dañ ko fi bàyyi ba si tamit dafay wéet. yóbbu fan yow miis kii kii dund zaar boobu de kii boo ko nee cere ji neex na mu ne sama tànk laa ko laaloon. ki buñ ko mayee kanam xol boo té ñaari fan ma jël ñaar mom 3 troisième bi day day gii fanaan ak dem ah sañ <laughs> eh, <laughs> ah, na ko ko raw eh toogal ci kër gi ngay xoj joral noonu ñu ne mu ñemee tooñ te ragal yu doon ta wa yeen sañ sa ngeen de fu ngeen jëm ni xana da ngeen di génn su ko ko bi dañu yobbu ah ci yuma mais ça fait l'occasion mi may wo démb rek ñi ngi wax soxla na ma war na dem uh, fofu voilà bàyyi leen ma préparé. ñu mm-hmm. àndandoo kay yaru ko déggoo li ma la xanaa mm-hmm. bàyyi ñu demal suñu bopp. ki ñuy jël si léegi mu agsi. waaw mais kër yu ma ngeen jëm man am naa fa soxla fa laa jëm bàyyi leen ma déposé leen ñu demandoo ensemble. bàyyi ba beneen yoon boo fa bëggee dem nga dem fa mais tey suñu dem la nag mm-hmm. ah, ànduñoo kenn. waaw tooga jarul ngay sonal sa bopp. waaw mais yéen eh yéen lan ngeen bëgg nag yéen lan ngeen bëgg. nga yem ñu fi la yem. ah da ngeen a def coalition man di xex man da ngeen a àndandoo wóor ngeen ne da ngeen a manko da ngeen a juboo léegi man da ngeen may isolé sen coalition ngeen def yow mom mistiam yow toppal ki mu dila dugal xam nga ne yow ni nga mel melo won ni toppal ki mu dina dina ko dina dem sa yaay na dina ko wax sa yaay yow lol mom nang ko ci ko yi nga commencé ko wax sa yaay kii nga xam ne moom faalewul yaayam déggalul mais ñii xanaa waxoo ak ñoom. ah kay. ah waxoo ak ñoom. ah luñ mais maa leen fekk ñu solo ba rafet ma laaj leen fan ngeen jëm ñu ne ma kër yumba ma ne leen occasion la parce que yumba woo na ma démb soxla na ma war naa fa dem xaar leen ma déposer leen ñu ne ma demoo. <laughs> dañuy natt seen mbëggeel ci yow rek. non ak yow lañ la wax clairement ànduñu ak yow loolu lañ ma wax. kon yow mère waxoo ak ñoom. wax naa ñoom booba dañu yaakaar ne sa oto du ñëw lool kese la. wala ñii seen coalition lañu def ñoom ñaar ne dañ may xeex seen coalition lañ def ne dañ may xeex. waaw ñii wax naa ñoom ba fa nëgal ma ñëw tooga rek dañuy ah, ànd ak yow. ñii yow la ñuy waxtaanee suñu toogee te seen bëggee la ñuy wane bii kii defe naa daf may dóor waaw. yéen. <laughs> miss lu tax ngeen di bañ mu yóbbu leen. Hmm, ñun ñoo mais yaay ñun bëgguñu ànd ak moom ñu mën a demal suñu bopp. ngelaw laa ngi ci biti. Ah. kenn génnul dinañ dee ko ngelaw li noonu non. miss jóg leen ngeen dem mu yóbbu leen oto bu nekk seen disposition. mu jëw on s'en fout. gis nga yaay ñun xam ne genre nit ban yow soo ñu meree nga yéeg dañ lay bàyyi nga yéeg boo yéegee ba wàcc ñun ci la ñuy yéeg ñun ci kaw terrasse bi dañoo yéeg. <laughs> waxuma ak yow miis kii digalula lu baax te yat bi bu dalee ci yow lay gën a metti yaay na ma xëy bi dal dinaa ko gérer lu ah. benn problème bëgg nañu wujjooyu jiwoo de mais def coalition ànd xeex seen jëkkër waxuñu ko te li ma gis nii yaa ngi koy topp ah delloo yu baax yow ya xaar loolu nga ma digaloon pas si nii waxuma ko ko ni ma ko mag lay def yaay muy daraaye non non waxuma loolu topp ko ci ligne droite bi rek laa wax yow yaay li mbaa mau ak jiw sonn nga de ñun demuñu kii duñu yóbbu munoo wax ñu miss déggal li ma la wax nañu jéem dama iya oto baa ngi taxaw yii yaay nag vraiment nag bu yaay demal rek nga toog nga noppalu ko ñun dañuy dem waaw doo ko digal ngeen dem na de ah

tey lay togg. tey ragu lay togg. luy ragu. ragu mooy soosu yàpp bu am ay légumes xam nga. waaw. Hmm. léegi da ngay filmer maman dégg nga am daal li ñuy wax niitu ba lakkale fi ne dañoo ñëkk ñu ngi naan dañuy xaat sa oto ñoom yow rek la ñuy waxtaane fi ñu toog léegi nag li ma gis nii hmm. dan yow yaay dëgëral ba won leen léegi yow yaay mer ñu ngi ñëw mais bañal déet mer loolu man duma ko mën te duma ko def bërki déem boo njaay fii nga ne ma yolomalal yolomal googu moo ma jural lii lépp léegi nag xam nga lal la delloo ma sama xaalis xam nga léegi nooy def. waaw wow lee koŋ koŋ koŋ na dëgg këj ci këj comme xeer. xam nga lan la delloo ma sama xaalis. delloo ma sama xaalis. ndax bëgguma na ñaar ak ñett di ñu dégg. da nga ne ma dinga wax ak ñoom ma yëkkati xaalis fay la pour nga wax ak ñoom defoo ko fii laay taxaw ci diggu kër gi weer la. tam yow amoo woon ci bi te bul def nii. dama lay weer de. Ah, waxal ak ñoom. léegi nag bii mooy gën a gaaw wow leen rek nga may mag dernière ba ñu ñëw. dernière chance bi mooy tay déedéet bàyyi ba ñoom bu ñu jógee kër yu ma ba ñibbisi tay ci guddi soo ko réglé wul dinaa taxaw fii ci diggu kër gi wax na jox naa la xaalis te da war a wax tay jii la may. ak magie arôme sa wàññi ngi gën a yànja gën a melax. ak yow tamit magie arôme am na ingrédients yi nga sopp yépp Chef gi xet gu neex ak couleur dorée, bii si arôme magique ak soble piment vert ak laaj seeni togg gën a ci saf ak bii xeetu arôme bu riche arôme mooy seen àndandoo bu gën a wóor le safal seeni ceeb ak sauce. Magi arôme roy du nur ak ak magi arôme toggal soppi sa dundu yaa ngi merci

ne maa la tooñ yëngal naa sa sëy te naroon naa la koo yàqal tu une femme avec un grand cœur ndax ku baax rek lañuy jéggalu mu jéggale ak li ma la def yépp terewul nga baal ma invité ma sa biir kër loolu mooy grandeur damaa rus sax rus nee naa la loolu yépp paase na nañ fàtte loolu lan la kaay toog dina jël ay yank lutax mom mo bëgg defar eh yow doo dig waaw du bëgg ci tank yow bu dem bo démé fi bo fi tojé kaas da lay ah, porté pelante yow di nga ñëw kër jaamoo am bi sa kër ñëk té doo ko càppale ay way ku lu jittu ci nek bu lëndum ki mako gëna xam dafa compliqué bu laal bagage am faama sa jikko ji na yam kër ga faama bay ni nga mel ma nga ngi dem jàng bo fi tojé kaas dina la bo wa ba tay baax na ma porté plainte njëkkee bu bu nga laa la mën a càppale Idriya, t'as un verre, s'il te plaît. D'accord, ok. Merci, c'est gentil. jëkkër waa. oui. man nag lan laa la mën a jàppale. kan yow. waaw. ci ma la baal rek nga def ni nga daa def rek. Mm, nga toog rek jàpp sa ñaambur ma rek nga def ni nga def comme tu vas. merci c'est gentil. reer bi pare na de. Hmm? bi pare na.

dimaas dama koy jéggalu sa kanam naroon naa tas seen sëy te loolu yàlla sax duma ko baal ma leen di baaluwaat bu baax a baax di leen jéggaluwaat baal ma àq ci weer wu sell bi

lepp man la wa tata ça va non def ça va bien alhamdulilah c'est aji non waaw c'est aji mas aji man de bidee wax na ma li fi xew yëpp mo contane trop ci sa réaction ndax ni nga ko défé wane ni reuyulo parce que danga ko def vraiment avec humilité ma bég ci loolu nag waaye ma bëggoon nga xam ni am na sëy yoo xam ne yàlla suñu borom daf siy teg loxoom te boo ko naree yàq yàlla daf lay wat boppam moo tax ma kontaan torop ci li nga def kontaan naa torop aji merci beaucoup Tata yow tamit maa ngi lay bu baax a baax maa ngi lay baalu baal ah tànn ndog bi neex na trop waaye nag ñu dañuy def suñu yëpp moom yëpp jeeg teraanga yi nañ ko trop trop macha allah yi la di brodé yaa ko moom ñun nañ ko trop ana nañ ko lool nag alal cinq cent mille yi téeméeri junne ngi nga suukaree ko te ñawlu ci tamit matu ko woon de waaye maa ngi leen di remercier wax dëgg yàlla di remercier nag Miss Thiam waaw ndax faama yow yàgg nga fi lool te yi musuma ko am si yow moo dama koy remercier Miss Thiam mi fi ñëw démb rek di tax li am tey yéen ñëpp jàmbaar ngeen. ah man kay bu ma nekkati jàmbaar garaaw nan gërëm miis rek te xarab kër dan nan xarab kër dan sa rak moo ñu digal lii lépp. moo moom moo ma yar ci lii moo ma yar ci lii kii maa ko jiitu ci kër ga yàgg naa fa lool fekke fa lu nekk waaye moo ma yàgg xamal ni ma ay joxe trangaat ay ñàkk trangaat comme miis yàggu fi xamu ko bu leen ko def bii dañoo forcé suma la waxe deug suñu alalu bopp lañu lanu tibb miis dafa jël bosam ma jël sama ba ñu dajale suñu dem ak suñu Dakar ba def teraanga bi mais keur dan dañ ko laaj mu bañ ni duñu jox lank ni duñu jox ndax neena li lii ko du farata du farata bàyyi ma laa wax wax na deug ah waw suukar ko du farata du farata dede ah? kon kay nan ko def sunna eh, kon eh, eh, bay ma dañu jëlo bagage tegal ah? tegal si indi ko pare kay du def waaye du tee ma wax la dëgg du farata te dafa solal jigéen ñi ba pare yow faama yow kañ nga musa indi suukaru koor yow bàyyi ba am wujj mis am ñëw ne suukar nga ne yow it kaay ma dem te daawoo ko def xam nga loolu moo leen jàq yéen jigéen ñi doo leen def teraanga doo leen toppatoo goro doo leen toppatoo njëkke doo leen ba am wujj doo commencé góorgóorlu loolu amul njariñ amul benn solo ba pare lii da di sonal teg ci xam nga yow loo ma indil rekk daanaka mën naa ko wutal sama bopp léegi yaa ngi naan sonn nga ci yaag miis du ne dugg ngeen ci etu jaru ko sonn ngeen yéen jigéen ñi pour ay suukaru koor ay amut solo àddina teraanga du looy joxe mm. looy wax la ak looy séq ak nit ki nga que oo ñuy waxtaan la relation moo war belle-sœur ak la femme de son frère mais Sénégal nag loolu amu fi te ñun parce qu'il y a qu'une femme pour causer les malheurs d'une autre femme donc da di affaire yi joxe sonn yi yu metti yi amut solo. miss merci beaucoup mën nañ yewé ko mis jógal ñu ñibbi jërëjëf ñu ngi mm, mm, mm, ah ko jëm de dama ñibi togal ah man ma mom sama ñibi dama ñibi la do ma téral dem nonu da ngay tok ma téral la man tamit hmm, jërëjëf may na la li nga doon téral teral laa la dama lay téral force nga may téral force da ngay tok ma téral la waaw fii nag lan la porte ale saaratul waaw boobu yëgéen dama tëj buntu sax daal au garde gendarme yëpp ñu tëj la fii def ok jarul zaa na ma. waaw ñu toog noonu. nan toog kon bi tey baax ay ca leen bismillah waaye chéri yaa ngi dégg Waly Diouf si d'ailleurs sax am nañ ci waxtaan صخر نانج